fii ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké gi la ñu amalee ndaje mu mujj doon càmbaraat mboolem ponk yi nga xam ne moom lañ jël ci màggaluk Serigne Abdou Lahad Mbacké gi chef de service yi nga xam ne ñoo nekkee ci région bu Diourbel ak département bu mbakkee ànd kook comité d'organisation bu màggaluk Serigne Abdou Lahad Mbacké gi kaaraange gi wàllum ndox mi assainissement courant bi élevage lépp loo xam ne rek jëm na ci màggal gi saytuwaat nañ ko bu baax a baax préfet bi di xamle ne mboolem matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko daañu def seen kéemtalaay kàttan ngir mën ko matale yàlla donc li ñuy fàttali daal mooy di ñi nga xam ne donc jël nañ fi engagement donc nañ ci taxaw bu baax a baax niñ ci war a taxawee léegi nii it euh, euh, wax naa pour que donc ngeen jël euh, maanaam feuille de présence bi ngeen am ko comité d'organisation bi parce que dina ci baax bu fekkee ci benn secteur bu mu man di doon ka mu moom la interpellé directement donc comité d'organisation bi donc jéem a xool ak moom nan la nan la ñuy kii mettre en œuvre donc engagement yooyu euh, léeg-léeg it aussi xañ na parce que du bëri parfois léeg-léeg ma jot ay appel donc préfet chaque fois donc di jot ay appel ci kii jot appel ci kële donc dina baax comité d'organisation boo amee benn affaire ñu ñu waxtaan seen biir ba pare wala au moins donc ka ñu am kenn koo xam moom la ñu délégué mu wax ak ki nga xam donc moom moo war a mettre en œuvre loolu parce que léeg-léeg li ma ci constaté mooy léeg-léeg xañ na kenn nit kii dina ko woo kee woo ko kee woo ko parce que information parfois da dul circuler am na ci loo xam léeg-léeg sax dina fekk def nañ ko ba pare mais am na ko xam xañ na amul information bi donc moom itam muy woote di laaj donc loolu parfois en tout cas day am moo tax donc day baax fu ñu ci toll daal donc comité d'organisation ñu waxtaan seen biir pour xam effectivement donc lan loo xam ne def nañ ko ci bu pare mais daal li nga xamante moom la ñu war def comme engagement en tout cas état ko nañ ci taxaw bu baax a baax en cas pour que li nga xamante ni donc moom mooy euh, màggal gi jaar ci ni mu xamante ni donc noonu la gënee. Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Abdou Lahad ak Serigne Mahamadan moom Serigne Abdou Lahad ñoo fa teewloon njabootug Serigne Abdou Lahad Mbacke gi ànd ko comité d'organisation bi Serigne Amsatou Mbacke sant bu baax a baax mboolem chef de service yi ci engagement yi nga xamante ni jël nañ ko ci màggal gi rawatina seen yéene ngir mën koo matale. mel nag loolu am ngeen yéene am ngeen pas ci lu jagal màggal gi. engagement yi ngeen jëloon itam lu ci bari def ngeen ko wala ci ëpp def nañ ko def ngeen def ngeen ko salaa bu ci dara duxut woon tam dañ leen di sant ndax pas-pas yi ngeen am ak yéene ji ngeen am te kook noonu yëg ji yitte ñu jox yëg nañ ko yëg ngeen ñu jox yëg nañ ko faale gi ngeen ñu defal tam yëg nañ ko kon nag sëriñ bi ngeen koy defal moo am seen pay yàlla na fay lu kaw seen jor moom nag ko am ku ku mën a fay bor la ndax ak yëngu ak dalam yëpp da koo jox sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa fayee ko lu ñëpp teg bët ndax fu masaa waxe ñëpp déglu ko fu mu ñëpp yéemu ci ak ay ay jëfam te wanewul boppam sëñ Tuubaa rek la wane bi mu fi jógee tam li li li yàlla gën a fonk muy alxuraan xasee moom la dëkkaale kon kooku sëñ Tuubaa tëbb na ko kàttan kàttan googee nag yàlla na ca sàkk tëbbuñu ko nun ñëpp ba li ñu yéene ci moom ñu am ko waaye li mu yéene ci nu na am ko laat kayo itam ñu ngi lay sant baax ci sa yitte ji xam naa juróo sant sax ndax ci kër gi nga bokk waaye nag gis nañ sa taxawaay gis nañ sa yëg gis nañ sa yitte kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm maire bi yaa ngi ci bu baax waaye boo jëf ci noonu sa alali bopp nga génne di ko jëf barki dem bi may liggéey rek da nga ne alali maire waaye sama alali bopp laa jël yabal say oto yi lépp kon nag ñu ngi leen sant di la gërëm di leen ñaal ñu ñu màggal ak jàmm te génn ci jàmm te ki jiite màggal gi muy sëñ Sidi ak sëñ Mountakha mi kilifaam yàlla may leen gudd fan gu ànd ak wér. ci fàttali màggalug Serigne Abdou Lahad gi mi ngi war a doon dimanche dëppoog le 14 di ñaar fukki fan ak ñett ci koor yi di bis bi nga xam ne ci la gane woon àddina.